jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax leen siyaar tey ku ne xam ne dañoo xëy ñëw kër Tapha Mbeur waaye kër Liss Ndiago la njëkkee déglu nañ ay kàddu yi nga xam si ni moom la ñu wax waaye tamit ñu ngi toog ak Tapha Mbeur Tapha Mbeur nuyu nañu la xale bu xew. non Fallou yaa ma gën a xew bàyyi ca caaxaan yi waaw di wax auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw ba nu sante yàlla julli ci di gërëm suñu ñaari waajur di nuyu waa parcelle yëpp 1 ba kenn Grand Médine Cambérène Nord Foire Grand Yoff ñëpp nu wër rek ñu ngi leen di nuyu ak fépp supporteru Tapha nekk maa ngi koy nuyu di ko jox wàccu waayam di nuyu yéen tamit sama gars yi. Tapha yaa ngi wër rek soo ba léegi foo nekkoon xanaa gars yi lay woo di la jox ay affaire non daa am affaire yu ma doon yóbbu maa doon yóbbu ay affaire yow bàyyi di ma ay affaire <laughs> waaw bitiwaar bi daa doon jox yenn gaa yi dama leen ko doon yóbbul quoi dama ko saam dama ko rey saam ko. doon ko séddale. ku si ne ma jox la mbuus. ku ne nga jox ko mbuus. ku si ne ma jox la mbuus. waaw. joxe nga say mbuus. ay ca Ousseyn. Euh, maa ngi leen nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay fi ma njëkkee rek mooy danga bëgg Ada Fass daanu. yaakaar naa ci semaine ba ci topp wala boo ci dimanche ba ci topp ñu gis la nga ñëwaat stade di sañee lan moo waral amoo bi nga daanoo ak nit làmb ju toll ak coono yi ñu ci daj amuloo temps récupération nga dem jëlaat komba waaw damay sant yàlla rek man ay coach gi ñoo may entraîné ñoom Pam Mbaye Rock Énergie. Mm-hmm. boo ma fekkee may kontaan da nga xam ne kii produit làmb la. Mm-hmm. man li ma gëm mooy làmb mooy sama métier. fépp fu ñu jàppee ni maag kii nii làmb la àdduna bëgg nañ ko muy làmb yoo xam coow la stade bi dina fees du ma ko xañ gaay dama koy jël dem bëre te loolu noonu tey moo waral ma pare woon combat rek jëlaat te instant nii parewaat naa buñ ma waatee suba suba suba damay demaat signature ginnaaw suba. mais nga ñëw nga ñëw ci signature bi buggul eh ñu sonal yow nga ñëw ci signature bi bugguloo wax ak moom. buggul non da kii dafa ne du jàng tey ndax day feete ndax dafa sonn démb. waaw ah, ko yow tappalekat bu mag nga. <laughs> xale bu am deux ans. <laughs> di jubilé feete victoire mu ne bu xëyee du jàng ndax daa sonn. <laughs> Ah, am nga. mais mais ma gis nga ñëw ci signature bi ne amuloo lenn loo wax ak Liss nga jël avance am ak moom bugguloo wax ci jëm kaw bugguloo wax ci sooy ñu ci bari ne dafa soof booy bi da koo xeeb lan la woon. waaw Liss Ndiago champion la. dama koy hmm. encouragé aussi avant may wax dara. di ko wax ni làmb moo ñu boole woon muy xale may xale coow làmb topp ñu mu am public bu mu am dafa mbër am public bu muy drainer. Hmm. tey làmb li ñu la wax rek amateurs yi li ñu bëgg mooy combat yu neex coow boole ñu bëre boole ñu ma jàpp ni damaa war a bëre ak moom mais amateurs yi li ma la wax li ñu bëgg dañ koy def ñun mais man foofu du sama niveau si làmb loolu moo tax ma ne leen làmb ji laajul ay wax ak ay coow ak ay nàngam lu dara lu ma waroon a wane la wan leen ni kënikat man fii du sama niveau si làmb waaw loolu moo tax man leen jarul coow lu bëri open press sax dama ne leen dama koy tegee na le parce que dama bëggoon ñu xam ne Tapha Mbeur képp ku ko daan am na lu ci naxasu noonu bu dee sama morom nga parce que dama ñëw si làmb joo xamante ni Tapha Mbeur xeexul bëriwul ñu ñëw rek ñu ne Tapha Mbeur ñëw ne dugg na si géew bi daanu moom ñu gën a ñu bëri comprendre uñu mhm. xamuñu ne am na lu si nekk man nag ma xam ne sa loolu du lu may taxaw naa nii ah nii bu ma ñëwaatee am xar kanam bu ma wane dañ xam ne dafa mbër mii nii kat no y' a quelque chose quoi. dama laaj Liss Ndiago ci open press am mu ne buñ ko jëloon takkal ko ay lam sax ci ginnaawam tafa mbër mën na ko jox kanamam mu dóor ci làmb jeeg mu ñëw nga dóor ko mu daanu. xëy na boobu xamul tafa mbër man ja man li ma ko wax li ma wax gars yi ma ne leen xëy na moom mi ngi bëreeg man mais xam naa xaw na maa négligé te xamul ne tafa mbër bëri na kaf mbalak ak fooree mais bu loolu yëpp paasee mbër dëgg laa. moom avant combat bi sax bu doon dafa ñëw fekk ma fu may entraînement wala may contact yàlla xam na ne avance bi dina ko teg ba ci kanam jafe-jafe nag mënul ñàkk ci yoonu mbër amaan na loolu moo tax sax moom mu bëri ma bëreek moom pour wan leen que ni kat rectification la te fii du sama niveau si làmb mais su ma paree ci moom damay dem bëreek samay morom damay dem bëreeg ñi nga xamante ni su ma bëreek ñoom dina metti dina am difficulté te li ma leen waxoon rek Tapha Mbeur ku ko ciy daan kuy moromam da nga koy neexal wala nga am foo ko dugal mais Tapha Mbeur nekk si làmb nga nekk si làmb arbitre sifflé mais da bàyyi open press da ngaa bàyyi open press a def open press nga bàyyi open press dem làqatu ji Touba loo leen doon def looy def damay sàkku ji ñaan ñun ay taalibe Serigne Touba lañ xam nga ñun ay Baye Fall lañ te Touba lañ yaakaar am nañ droit ba suñu làmb buñ ci entraînement ba pare xam ne nag làmb jee ngi ñëw dañuy dem sàkku ji ñaan xam nga lépp lu ñu war si làmb ji dañ koy def. nga demoon ci Touba. waaye maa ngi woon Touba. maa ngi woon Touba. <laughs> mais fan nga demoon ci Touba. maa sëñ Abdou Karim wala fan. maa ngi woon Touba bilaay. mais Fallou eh. Fallou damay dégg ci biir waxtaanam. parce que bëri na ak noppi. Mm-hmm. mais chaque jour ci biir waxtaanam day wax ne ku ma daan ku nekk wala ca la ma jóge woon wala fi ma nekk ci làmb du sama place. dafa mel ni euh, fa nga jot jaar dafa mel ni dafa des sa xel ba léegi wala dafa am loo xam te ne ko ci làmb jooju mu marqué la ba nga bàyyi ci xel bu mu ëpp. mu la metti la. mu marqué la metti la. la ci metti loolu koy dund te incha allah léegi fekk làmb di dem lu may gën a dem ñuy gën a xam ne loolu metti na ma. lan lan parce que dama gis combat boobu def nga ci lépp loo ci war a def mais danga cee jeex. combat bi par rapport ak combat bi dafa am benn maturité boo ci am man bu ma gis. Mm. ndax euh, bi ngay wàcc Tapha Mbeur bi nga waaj Ada Fass fekk naa la ba sa cumukaay démb tamit ñëwaat naa ba sa cumukaay mais dafa am différence yoo xam ne gis naa ko ci combat bi ak bii. bilaay ku waxal yàlla rek boo ñëwee di nga xam ne am na différence. te loolu noonu tey damaa bëgg gars yi lu may gën a dem rek ñoom seen bët di leen may paa mu doon lu ma leen di wax. xam nga loolu dama bëgg lu ñuy gën a dox rek ñoom seen bët di leen gën a may. te xam nga tey des fois kii bi neex na may koy exprimer nii. Mhm. mais di ko jëf ñu koy gis tamit am na solo. te combat bi décision boobu laa jëloon te sama carrière li ci des. donc sama bakkan bii laa si gar lépp lu ma doon négligé dootuma ko négligé dinaa ko téye dinaa ko fonk ak fukki loxo. démb da nga wax ne làmb du wax kase jëf ci la bokk bi ma la laajee ne la lan ngay waajal gars yi ci tuus nga ne loolu dama koy bàyyi ak moom ci biir géew ba laay laay laay laay wane li ma andi wala boog li ma koy waajal moom. laay sama géwél yi après dañoo bëggoon jàppante mooy répété sa def moom boo xoolee combat bi ma ñëwee tuus Modou Lo laa tuus. ki ñëw si làmb ji gis ne dama ñëw rendre hommage Modou Lo. ba noppi ñi ma gëj a gis soog énergie ma dama leen a gis. billaay ñoom grand yaaram yaaram de ñëw taxaw xam nga ñoom Maodo Kaana Mbacke Faye xam nga Lamine seen maanaam ay champion yoo xamante ne tey ñëw dar ma sama ginnaaw te contact noonu la demee woon ñëw ñoom Lamine seen ñoom Mbacke Faye xam nga ñoom yaaram de jegaan Obali Ibou Ndiaye aada booy Bawol yow yow kay lii moo tax nga rey booy bi ay ëbbali fu ñu la daree. ñoo ñëpp di ma contact loo contact yi métti suñ contacté ba 6 heures jot Pambay daneen toog leen naa samp si digg bi ku su ne damay bëreeg yow 2 minutes yoo xam ne amul atte. est-ce que nekkul waa parcelle Modou Lo dalee na ñaaxaat seen bopp ndax xale léegi boo xoolee euh, Modou Lo la ñuy roy ci entrement bi ci lépp est-ce que Modou Lo woowu leen ci roq yéen parcelle mu waxtaan ak yéen. noonu nit da ngay am référence. nit boo nekkee grand yoo xamante ni tey lépp lu ñu am si àdduna liggéey moo leen ko may yow dangay def sa xel que ni ma nit lépp lu ma war a am liggéey moo ma koy may. man sama sama grand course gi billaay su may entraîné da nga yaakaar daf maa bëgg a rey tey sama combat passé sa waay mu ne da nga jeex entraînement yu metti dama ma liggéey ba mu ne ma sëñ bi man de xanaa yàlla mooy maye mais lu entraînement di maye boo demee di nga ko am. mais nag yàlla bis bu mu ne yaa ko moom yaa ko moom bis bu mu ne moomuloo ko moomuloo ko. waaw amoon naa ay manquement parce que sam am na côté boo xam ne ne man dama jàppoon ni entraînement sama fit ak sama bëri moo may may lépp lu ma am làmb dafa am ñaan te loolu noonu fekk xamoo ko sa mbër des na fekk xamoo ne làmb mystique daf si am part bu rëy billaahi sa mbër des na am na ñuy jël naan la ay 2 pour cent la si làmb dundooguñ ko. képp ku ko dund xam ne am na part bu rëy ndax da ngay liggéey ba dee ñëw li nga liggéey yow doo ko mën a jëriñoo te nit dafa sama lampaase yéen a fa woon sama ci dañ day nekk ci stade bi sax naan Tapha Mbeur est mi ngi fi. démb gis ngeen ni à tout moment maa ngi génn maa ngi dem def samay échauffement maa ngi dem def samay sarax maa ngi jaabante bañ naan ma kaay toog xam nga tey am na ñun ñëpp ay borom xel lañ di nga xam ni kat. bii passé ak bii nii gis nañ ñaari différence donc loolu noonu moo tax ma ne leen làmb loo ciy gën a ne rek di ci gën a jàng moo tax li nga ne tey est-ce que mbër gi desoon na mais mbër gi desoon na parce que am na côté boo xam te ne dañ naan wax voyage sax ma ne booy yéenay dem man damay entraîné ji dama war récupérer dama war a nii mais si jour bi ma ñëwee léeg ñi keroog dama ne leen man stade bi pour man côté bay laa nekkoon keroog cumbukaay comme luñ juutal si man barke alxuraanu karim. léegi yaay utali sa bopp cumbukaay. non maanaam fépp damay jël sama tànk bii di dem fu ne am na ñoo xamante ni kenn xamul nuñ toll ñoom it ñu ngi jug di dem waaye man damay jug à tout moment parce que dafa dafa bokk ci affaire bi li ñu waxoon rek nee nañ la gis nga lu baax ku la ko yombalal moo la ko xañ pour yow toog entraînement récupérer kese la non da ngay jóg. ku la ko yombalal moo la ko xañ muy man muy samay morom nag te képp ku ko ci am jël ko nga téye ko parce que tamit làmb ji léegi loolu daf ci bokk parce que liggéey la ku ci nekk bëgg nga cee tedd loo ci loo ci bàyyi rek sa morom jël ko. léegi Tapha ñu ñëw ci digg géew bi nga dugg si digg géew bi euh, Liss dugg ci diggi géew bi ñaata butéel nga andi. man ay trois bouteilles yaakaar naa <laughs> dama gis gars ay trois bouteilles la ñu andi mais dañuy andi cinq bouteilles yoo xam ne ci biti lay nekk. des fois ñu saako toog benn bi dugal sotteekoo jëlaat beneen bi dugal sotteekoo mais bi nga ñëwee ci digg géew bi nga xool liis ak liis mu nga gisoon signature bi lan nga gis ci moom. waaw gis naa état de forme xam nga avant gisoon nañ sax fan yéene xëy ne comme booy bi dafa mel lu changé am lu mu jël mais man bi ma ñëwee. li mu jël wax ko. non bi mu ñëwee ci biir géew bi damaa gis loolu changé parce que damaa gisaat beneen forme. ma xam ni liggéey na ci diggante bi parce que tey foogoon naa ni naa fekk ay biir yu pàcc wala ay côté yoo xam ne maanaam parce que ñun kanam gi lañ gis mu débordé ñu ne kii am na lu mu fi jël parce que dafa gaaw ak patati patata mais bi ma ñëwee jour laa làmb ji loolu gis naa ci changement te loolu noonu di ko si wax ni loolu mooy làmb entraînel loolu entraînement mayul bu la ko leneen may. man tey sama combat passé ñëw. mais lan ma waraloon lan ma waraloon joxe communication di ko jéem a sensibiliser nee na bàyyi li muy def. te tey man li ma yéene. ñu ci bëri dañ ne woon da ko bëggoon déstabiliser. loolu nga ci jublu woon ñu bëri ñu ngi naan ma sax yow yaa ngi koy yaa ngi yaa ngi koy kii nii nu mu yaa ngi koy dimbali parce que yaa ngi koy wax faayam. Mm-hmm. ma ko non du loolu. parce que man li ma bëgg mooy tekki si làmb loolu laa koy ñaanal. Mhm. kon tey li ma yéene sa bopp laa ko war a yéene. am na ay grand frère yu fi jëloon ay affaire après am ci ay problème mhm. ñun ay xale lañ demaguñ fenn. Mhm. suñu làmb soreegul. kon tey ñun waruñu gaawantu. ñu raam tepp tepp ba egg fu ñu jëm c'est yàlla. man loolu laa gëm moo tax ma ko doon wax. du dara pour déstabiliser ko wala pour minimiser ko parce que champion la ful bi muy drainer. duñ drainer n'importe qui du ko drainer. Mhm. te ñun fi ñu toll si làmb on est douze mille licenciés ku ci bëre ba làmb bàyyi la xel ça veut dire que jàmbaar nga moom jàmbaar la man jàmbaar laa mais tey yàlla moo ma may xañ ko mais bu góorgóorloo mën naa am lu ne si làmb. dafa am ba dóor mu daanu bi ñu ñëw si dóor mu daanu bi ñu la digal la wala loo préparé. préparé wu ma ko boobu mooy sama cinquième dóor mu daanu te yëpp du ma ko yóbbaale stade la may fekk. nekkul benn bu may dem ne tey damay dóor nit ki mu daanu. nekkul dara dóor mu daanu boo xam ne dañ la ko wax. non non kenn waxuma ko kenn waxuma kenn néew ma kenn su ma demee tey lii laa koy def mais xamoon naa ne bu dëggalee boppam xeex ak man man mën naa koo dóor mu daanu ndax man sama làmb yi mbër yi xeex ak man yëpp boo xoolee foofu la mujj combat bu ma ñàkk da ngaa ñëw ci xeex da ngaa simuler xeex sóob daw dem defi leneen mais musoo ñëw làmb ñibbi ne Tapha Mbeur kat tey moromam bii da koo duma de. yéen yéen a ngi si mais mais bi arbitre bi sifflé bi arbitre bi sifflé ngeen lewaatoo nga reculer mu topp la nga reculer mu sëkkatal la nga teg ñaari pas génn dellu siwaat lu la sëriñ tegtal la wala boog dafa am stratégie boo doon xool sa diggante yow ak moom. lu ñu ma digal la. dañ la koo lu luñ ma digal la pour ma def ko moom it jàpp na ni kooku damaa ragal te bi ma génnee saako yi ay supporteram sax dañoo ciblé. Mhm. jóg yuuxu yaakaar ni bon sa waay ñemewul tey ki muy bëreel. mais làmb lu ma la wax stratégie dafay bokk ak ànd ak ay mag ñu ne ma tey làmb ji lii la laaj loolu laay appliqué te bi ma ko defee deuxième bi ñu ne ma kii si sa tànk bi la jëm li lim la wax xeex gëmmu ko day sóob bu sànnee ku wala ñaar wala ñett it bul góor bul corps à corps bul gauche droite dañ koy jiwaarloog ak yow booy xeex ak moom jàppal ba mu dëgër nga rocc sa beneen loxo bi te looloo tax bi ma ñëwee ak moom mu sànni ku ma ñëwaat mu sànniwaat. mais kon nga xeex dina ci am ba ngay jàpp. non xam naa ne du xeex xam nga. Euh, cokkaas ak xeex mm. ça fait mm-hmm. moom dafa cokkaas. ku ku yoo xam ne fii maa ngi koy gis nii du yoo xam ne ne maa ngi koy gis nii sama bët day ñëw ba fii taxaw moom du yegg fee lay taxaw ne nii taxawaat pour lan man ma màmm man saa bu dóoree benn ku rek ma teg beneen paa jege si ko man maay xaar mu ñëw mu sànniwaat beneen ku ma tegaat beneen paa ñëw mu sànni rek daw jël ma tëru ko nag téye ci ngembali Ouza 2 ne ma bul dóorante gauche droite del jàpp ba mu dëgër rocc sa beneen loxo am nga force de frappe bi ma jàppee bi ma ñëwee ci géew bi loolu nekk sama xel bi ma jàppee damaa rek sama loxo téye ci téere bi ci loxo bi rocc sama beneen loxo bi ñaari coup laa ko dóor benn bi dal si dënn bi beneen bi dal si masuwaar mu wàcc. ñu gis ne boo xoolee coup yu nga ko dóor moom la ba moom la Modou Lo dóoroon Eumeu Sène. waaw ñun moo tax ni ma la wax rek ñun parcelle lañ dëkk te ñooñu noonu suñuy référence lañ te ñun. lu suñ defee loolu wàcc nañ waaw ñun Modou Lo nee naa la ñoom suñ nekkee fii bu ñu amee combat ñun sax dañuy jël suñu mbër teg nee ba seen combat passé ñun ñu doog nekk mbër parce que ñun grand yooyu doyen yooyu Modou Lo Papa Sow Zos Garga Mbossé Moussa Dioum Fara Goro Sok ñun ñuñ lañ fi am topp si seen ginnaaw ñaan yàlla def li ñoom liñ def si làmb ñun ñu def bëreeg waaw coow li mais ñun man yaakaar naa ñun mbappat yi ñu bëre man man man coow ak mbooloo mbapat la ma toppee man mbapatu quartier laa bëre Parcelles Guédiawaye Pikine Yaraax Dalifort Wakaam ful bi daan ma topp dama daan ñëw mbapat ñu wër ñu ñi yor ay jam xam nga yooyu dama ko tàmm mën mbër mu ko xamul nag su bëreeg yow dina la sonal ndax ful bi muy drainer gars yi gis nañ niñ mel ba pare dañ lay sonal mais man dama leen ñëw damay ñëw fekk si leen si loolu parce que ñoom dañoo ñëw man ma jaaxal leen li ma bëgg a dama koy def du wut sens interdit du ma wut kenn ku ma gunge comme ñoom ñu xam ne kii nii xam na lii ñu ko indil loolu koo xamul la lay jaaxal mais ñun mbappatu mbedd yi nii lañ jàngee mbapat moo tax ñun dugg ci ful coow lu bari ne boo xoolee combat bu ma dañ naan lu tax nga jógee ci coow demaat ci coow loolu laa xam man combat bu amul coow sax du ma neex. kon mbaru coow waaw man coow li faaw muy bari. ñu naan lii lan la. man loolu moo may neex ko mais mais dama gis euh, bi nga ko dóoree mu daanu ba mu leer na la daanu na. nga dolliwaat ku lan mooy problème bi li nga noo déglu ma rek li nga bëggoon def ci làmb ji moo temps boobu ngeen amul sa diggante yow ak moom. wala waaw wala règlement de compte parce que da nga koo dóor ba mu daan. Eh, jàppe naa ko en eh. non moom nee na dama koy rey ba rocc pout bi man bëggoon naa. bëggoon naa mu subir maam bëggoon naa mu subir quelques coups après dafa teel a bàyyi. dafa teel a waaw coups yi bariwul. te bëggoon naa. ah da ko bëggoon a rey. non maanaam bëggoon naa ñu xeex tuuti comme nee na moom xam nga ñoom dañuy ñoddi benn affaire quoi seen secteur bëggoon naa ñu jëflante tuuti comme loolu la wax neena na xale la dafa mbër dinaa la wax loo mës a loo mës dégg dinaa boo xeexee ma duma la. ma ne ko ah da ngay xeex ak man ku déglu bande annonce dama ne ko di da ngay xeex ak man mu ne ma waaw ma ne ko comme maa lay xaar néew ma ko dinaa la duma de maa lay xaar laa ko wax parce que xam naa ne sama morom bu ci xeex ak man du neex billaay du neex. sa xale bu la ne nañ sànnante xeex nga ca poos ba xale bu la nen nañ saa ne xeer xeer ak a jëf poos ba du sëgg boobu nag gars yi dañu yaakaar ne maa ko fekk pour dóoraat ko non non boobu pour man yeggul. non waaye xam nga ni gis nga xam ne yegg non non pour man yeggul. waaw yow da nga doon lis ñaago ba mu daanu ba mu këpp. nga fekk ko fa njoos ko benn bi nga koy njoos pour man nag dafa teg loxo yi man ma xàccaat boo xoolee boobu bi muy waaj a dal laa gis ni yegg na ma ma ma dagg kuu bi kuu bi eggul déedéet kuu bi dem na ba xëy ba dal ko nii mais maanaam kuu bi amul impact bi moo am bu doon dama kaa ànd ak moom rang da ngay gis sax mu am nu mu defaat mais dama gis ni mi ngi yegg mais pour man yeggul quoi mais loolu maa ngi koy tuub képp gis ni leneen la mais yàlla xam na ne pour man yeggul mais loolu du ma ko def quoi man du ma tooñ baa ngi toj dangaa xew non non xew yow mais mais nga jógee ci combat bi fi mu toll nii defet ba nga amoon nag yi fi jotoon a xew dafa Mbeur nanguut a génn Tapha Mbeur nanguut wax te ñu xamoon la. nga daan génn di am waaw di bëggee di kaf di foo mais yooyu yëpp gisatuñ ko. fi mu toll sama ñoo amoon lu leen metti te man tamit ñoom dama leen respecté daal. man it bëggatuma nekk foofu di défouler beneen affaire comme si yëgu ma ni ñoom am nañ lu leen metti mhm. il fallait ma wan leen ni man li ngeen metti metti na ma te dinaa la fajal. su ma ci paree nag après ma bëggee quoi. léegi daan nga liis njaago nee nga doo moroomam ci dara. ci rien du tout. ñan ñooy say moroom. soq laa bëgg mu ñëw ñu bëre. soq moom du la jël. dugg na ci kër gi de dugg na ci kër gi de soq du sa moroom. waaye luy morom. non non moom kan mooy moromam. ah ñii ci kanamam. waaw luy ñu mais xam nga xam nga ñu sama morom ñi sama ginnaaw. ñi sa kanam. kon moom mi ngi sama kanam. mooy sama morom. su buggee day ñëw ñu bëre man neexaluma kenn ëpp ma <laughs> coow gënuma nekk euh, espoiru làmb làmb gënumaa soxla ko moom. waaw mais Dame Sène Dame laaj na fi soq soq bañ. te Dame Sène ci ay magam la bokk te tey Dame Sène ci ay moromam la bokk moromu soq la. Dame Sène champion est-ce teelu comme ni Liss Ndiago teelee ci yow est-ce que yow teelee woon noonu si soq. man ñooñu ñooy suma adversaire parce que dafa bëggatuma jël combat ñu naan ah lii dafa nii dafa naa bëggatuma jël ñu ne man dama bëgg bëre combat yoo xam ne comme Modou comme Eumeu Sène Gris Bordeaux seen combat jëflante boobu damaa bëgg bëre comme Modou Lo Eumeu bu njëkk ba te yooyu combat boo xam te ni ku may subir moo ko mën man su ma bëree combat bu metti bu yàgg dinañ xam kii mooy kan. te loolu noonu soq moo fi sama adversaire parce que loolu day dundal làmb soq ñaanul yàlla bëre combat boo xam ne ñëpp dañ naan ah combat soq bi de tey moo mën neexul. ma ñëw wala ñu ne ah combat Tapha Mbeur bi de tey neexul mais Tapha Mbeur soq lan loolu mu dem waajali ma dem waajali ànd ak waa Pikine. ñorul de ñorul de te du tàbbi. waa bu tàbbiwul it amul problème man carrière laay suivre képp ku ñor na ñëw tàbbi. mais moom moom laa ñëw nit ñi bëgg sama combat moom moo tax ma ngay wax nit ñi buñ bëggee keneen mais yaa ko bëgg dañ promoteur yaa ko bëgg wala yow yaa ko bëggal sa bopp supporters yi bëgg nañ ko amateurs yi bëgg nañ ko Tapha Mbeur bëgg na ko kañ nga yëg bi nit ñi bi ma bëree ba pare man bi ma bëree ba pare rek après loolu ngeen ma laaj fu ma si fu ma topp fu ma jëm li nit ñi wax laa bëgg. looloo waaw loolu su ko su ko bëggul xam nga moom dafa taxaw ne Franc la soxla Franc dafa daan doyen Tyson 2 mook Franc dafa tàbbi. xam nga tamit àdduna ku si nekk da ngay xam li lii di wax Franc dafa daan Tyson 2. moom mu ne Franc na ñëw nangam ak sàngam moom nag dama koy xamal ni amul beneen adversaire parcelle bu dul man ñee duñ ay moromam balaa moo bëreek ñoom day bëreeg man. lii kasa la mënul défendre ay intérêt di xarab samay intérêt ni bëggee Franc noonu la war a mën a bëreek man ba pare su bërewul ak man Franc du bëreeg moom un point c'est mu jeex. yow boo bëree wut ak soq moom doo bëree keneen. damay bëree keneen moom bàyyiwuma fi de man suivre carrière di ko fi xaar bàyyiwuma ko fi moom bàyyiwuma fi dama bëgg ñu bëri su ko mënul ma bëre keneen loolu la rek. fi mu toll na gannaaw laa mu jeex na euh, pression bi wàcc na. sulaase sulaase sulaase. ma exprimé ko. waaw ma gënee rek sama lu dul jàmm ko gën. lu dul jàmm. jàmm ko gën jàmm loo ci am di doy. waaw. ii désolé yow mosoo am loon. Saint-Valentin je suis désolé mosuma Valentin. waaw mais non da cee génn. da génn mais yëre bi. yëre bi foo ko jëlee. yëre bi. dama kaa for bàyyi sa yi ngay def naa ci yow béy nga ne nga ne jàmm gën nga ko jëlee de. dama ne la moom jàmm gën maa ko fa ëpp ay nit xam nga moom mën na fa am ful. yow ku dëkk jàmm gën nan nga ko fay ëppee ay moom fi may dem biir jàmm gën moom am fa accès dañuy waxante dëgg quoi làmb la nii rek mais moom mënu ko jaxaseeg waa jàmm gën fa la dëkk mais dama fa am part de. moo tax nga am fa lii. ma yow am naa fa lu ne. lu ne. est-ce que du Valentine bi aussi fa la ah, ne. déedéet. dama ne Saint-Valentin je désolé. ka ngay bëgganteel moo ko jàmm gën kon. waaw ah, yow mu yow luy loolu. Ah, luy loolu. da ngay bëgganteel. Liss Ndiago laa doon bëgganteel. non bàyyante nañ euh, démb. <laughs> sama Valentin dañoo bàyyante démb Liss Ndiago. kon soq ngay bëgganteel fu mu ne nii. instant yii soq mooy sama Valentin. séri na moon naa la. <laughs> kaa bëggante. barki sëñ Fallou. soq yaay sama Valentin. yaay sama Valentine. séri na moon naa la. Eh, eh. kaa bëggante. Eh. da ñëw nga naani kaani. wala nga jëndi garaas ñaar yi moo fi ne wax mu naan tës tës fii mooy parcelle lu fi am toj sa mbaar yi mu naan tës tës ah yow ma yow sox bu bërewul ak man mënul am combat bu gën a neex moo Tapha Mbeur dañuy waxante dëgg mën na lu gën a mais mënul am lu gën a neex te làmb dafa war di neex coow la bari sponsor yi ñëw nit ñi ñëw ñu def ko pay per view ma si pourcentage comme pay per view bi léegi ñu amatuñ ci pourcentage <laughs> ku may tëggati yéen laay waxal pay per view boo ko koy def danga naan ma di nga ci am temps wala waxaale bi dina saf-saf mu yow luy loolu li laa lay fay rek nga dem toog nga defaat sa pay per kenn xewut pos yaa ah? xew de ay xew ma de damay wax dëgg bu ma kenn xewloo xale bu ndaw laa dama ko moom fenn waaw ma nga noonu combat revanche da combat revanche moom yaakaar naa ne day jaral ñaari mbër yëpp yooyu moom day naxaree pronostiqué ndax ku ci nekk sa bakkan nga ciy teg kii day bëgg a daanaat kii day bëgg a jël revanche mais bon combat yooyu moom di leen ñaanal rek comme ñoom suñuy grand lañ mënuñ ci wax lenn luy ndiroog ñu ngi fii wala ñu nga fële mais daal xam naa ne combat yu nar a neex lay doon Bombardier Eumeu seen revanche la boo xam ne ni maam gars yi bëgg nañ ko ndax gis nañ bee passé ni mu demee te gars yi bëgg nañ Bombardier bëgg na fay Eumeu Sène na ko wan ni ma la defoon laa lay defaat que le waaw làmb ju ju neex a ngi noonu làmb ju nar a neex parce que combat boo xamante ni guy gi bëgg na ko Reug Reug bëgg na ko wan ni man champion laa te guy gi nee na du ma ko du ko si bàyyi làmb jooju moom bokk na ci làmb yi gën a neex ren waaw dina neex torop ah mooy li loolu <laughs> ah bale moom loolu moom ñu féete moom loolu bu ñu waxee rek nga xam fu ñu féete waaw Modou Lo la ñuy ñaanal ndam ndax tey ñun moom lañ fi am mooy sunu tiitar Ama bu daanee Pikine la koy yóbbu Modou bu daanee fii la koy indi mais en tout cas Ama am na combat waaw am na ngandi combat Modou am na combat moo tax mu dem di làqatu di entraînement yi met na xam na ne Ama Baldé du ñeexu ñebe kenn mais Modou Lo tamit daj dëpp la mën ngay daan mais boo bëreek moom xam ne bëri naa ak mbër moomu mës a moo tax ma xamal leen ne làmb jooju dina neex torop loolu la Modou Lo waxoon Ama Baldé nga ko newoon nga ñemewumaa ñëw signature bi lan la ko waxoon. waaye man nee li ko waxoon man fàtte naa woon. <laughs> Eh, xam ko ma jaxase man fàtte te nga xam ko. <laughs> ñoom ñaar ñëpp ay champion lañ. du ma jaxasar kenn Ama ah, champion la lim def si laamu ñaan naa yàlla def ko Modou Lo mooy sunu doyen mooy sunu idole mooy sunu lépp. kon nag di ko ñaanal ndam di wax ni Ama Baldé am nga komba Modou Lo du la may as ngir boromam. Fallou Daouda. sunu Lions yi jël nañ coupe bi lan ngay wax ci ndam loolu nga xam ne mosut a ñëw senegal wala bu mosee ñëw tamit man fekkeewu ma. waaw li ma si gën a neex mooy coupe bi ñu ma tuddee parcelle nee nañ ma coupe bi yow leen ko tuddee ndax Sénégal dafa jël coupe bi dimanche yow nga def raxas bi dimanche bi si topp daan li njaago si beneen dimanche bi kon nag liir bu juddoo. liir bu juddoo dimanche dimanche bi dimanche ba sa topp kon yow da nga doon génte dama wooye coupe d' afrique du sénégal ma lay wooye coupe d' afrique du sénégal coupe d' afrique noonu laa tudd noonu nga tudd lee wala première étoile première étoile ah, waaw <laughs> kuy sa mbër kuy sa kuy sa jour kuy sama nationale du sénégal <laughs> am nga si jour ah ma yow équipe nationale du sénégal mais am nga si jour yéen mbër yi am ngeen jour Sadio Mané la wala kan Sané Maajo dafa jël combat bi teg ci bakkanam moo tax ñu koy sant moo tax man kombaa bi ma teg ci sama bakkan ndax saane Madio daf ñoo jàppale biu dugal gañe bi daf dafa dafa yeewi askan wi yeewi askan wi waaw violence sax pourtant mu ngi commencé wàññeeku waa ah, ndax ay temps la gënoon metti waaw mais démb xam nga rek làmbu xale moo mel noonu parce que promoteur bi dafay yokk sécurité bi boo jëlee ñaari booy am dañoo am coow am publique bul jël ne ah ay booy laa tëgg rek jël komba Modou Lo jël 1000 Gémi ne boo yéenee baa ma jël 12 Gémi non non non parce que tey booy fu lu ñuy drainer ñooñu. Tapha Mbeur mooy seen Modou Lo mooy seen balagay ñee Liss Ndiago mooy seen Modou Lo mooy seen Ama Baldé yaa ngi dégg kon tey ñooñu noonu ful yi ñuy drainer seen mbër seen bakkan la leen jaral te ay ñaari jeunes yoo xam te ne ful bi ful bi seen yaram tàng laale mën naa am donc tey sécurité dafa baax football sax xam ni moo gën a cool dañuy jël sécurité boo jëlee ay xale keroog dégg naa Bécaye Mbaye sax war na ko nee na boo jëlee ay xale yoo am ful bu leen dem géewal rek bàyyi leen foofu da nga leen di jëlal sécurité bu doy nga xaajale leen ni ñuy jaar leen ñuy jaar leen nii parce que sécurité bi mooy assurer la sécurité et la bien des personnes xaw ma lan pour loolu pour la. waaw ndoy assurer sunu sunu bi sunu sécurité et nos bien donc mënoo ñu yóbbu foofu ba pare doo indi ñu assurer sunu sécurité parce que tey ak lu mënti xew sport ku gañe kenn ki day mer kenn ki kontaan te foofu après mën na am lu xew donc sécurité bi dama koy ñaan. ay booy bu ñu amee mbooloo am ful boo leen jëlatee jël sécurité bu bari xam nga la nga boolee leen foofu ndax làmb ak coow ñoo ànd football ak coow ñoo ànd mais sécurité su amee rek day yomb loolu la rek bul jël combat ñaari booy yi ne ay xale lañ ay xale fay nekk mais ful bu ñuy topp du ful xale loolu la rek promoteur la ñuy ñaax ci loolu ñu yokk seeni sécurité làmb ji mën a stable ndax àdduna foo jëlul sécurité rek werante am fa. waaw amaan na xëy na ñoom ñoom suñuy kilifa lañ si làmb mais euh, am na grand combat yoo xamante ni ñoom ñoo jur si làmb seeni làmb day beexeex. mënuñu feesal esaat wala làmb ji des fois di nga ñëw naan est-ce que làmb ji tey xam nga neex na waa du am mbooloo mais tey bu dee ay xale yoo xamante ni. boo nu tëggee tëgg ñeneen grand combat ñun suñu daanee yóbbu suñu mboolo sa grand combat bi kenn du ko seetaan. te ñoom ñoon promoteurs yi ñoom ñoo ñun bu ñu dugalee juróom dañoo bëgg fukk. ñun ay bailleur lañ. kon tey da ngay xool combat bi nga xamante ni da lay indi rendement. loolu moo indi loolu rek. parce que tey boo xoolee mbër yu mag yi ci kaw ful bi leen di topp moo tax ñu toog foofu de. bu doon ñun la ñuy topp bàyyi leen ñoom. ñoom dootoo dégg seen kase yooyu te dootoo leen dégg grand combat ñun la ñuy ñëw di ñu bëreel spécial wala ñu ñuy bëreel petit combat donc ful mooy yóbbu affaire yi foofu làmb moo màgg amélioré ba nga xamante ni mbooloo mooy boole ay mbër mbooloo mooy yóbbu dayoo mbër am na mbër yoo xam ne tey ñu ngi si kaw bugguñu si cité pour dara ay mbër yu mag trois combats lañ bëri bëri ji grand combat Ama Baldé bi ñu bëree grand combat amul cinq combats mm-hmm. mais waxuñu ko ah mais tey làmb bu dee ñun la suñu coow li bari na suñu riir yi bari na ñu ne booy yi nañ leen wàccee waat ci suuf non non non non lii nee nañ borom bitigu mbagg boo gis boo ubbee xol ba no goro si nga fay fekk magasin dafa ndaw. <laughs> mais bi nga jëlee Ama Balde. bi nga jëlee Ama Balde coow li nga doon dégg lan la. bi ma jëlee Ama Balde Mbër jël na Ama Balde coow li lan la woon après. jël na Ama Balde. Mm. ah Balde mënaguma bëre moom léegi de. bi waaw coow li moo nekk sama xel rek. ndax lamb jooju àdduna la. mais bi ma ko jëlee coow li moo bari woon. ak ful bi ak mbooloo mi mooy li ma la sànq ñaari mbër yu am mbooloo. coow li bëri booy da ngay gis foo tourné booy ñu ngi warante fu nekk booy sonn nañ booy lii booy laa booy lële. looloo taxoon lamb ji am ampleur man ma ne xaaral ma retiré wu rek noppi. parce que xam nga rek làmb boo waxee ñu ne yow da ngaa ngay bëre wala yooyu wala da ngaa naagu moo tax moo ne cell mais am na mbooyu am coolo mbooloo moom boo leen tëggee coow day am nga wax ko ñàkk wax parce que seen ful moo yóbbu coolo mbooloo mi ak coow li mais dama gis booy booy ñëw loolu moom xam naa sax làmb ji jeex na mais dama gis booy ñëw ñu ci bari dañ naan bu Tapha Mbeur di bëre mën ngaa bañ a añ ndax pomme yeeg banaana yi saax la wala da nga koo andi noonu pour pour bégal amateur yeeg supporter yi <laughs> bëri bëri si si matière du bëri bëri dañuy daw laax si samay ci matière <laughs> pour mën a lekk <laughs> da ngay gis léegi nee na ma dafa lekk naa banaan lekk naa pom lekk naa orange naan naa ndox ma ne ko mbaa géex nga <laughs> ba nga pare mbaa géex nga mais yooyu noonu si làmb la bokk sarax yu ñu sant la rek ku ci mel ni ñoom Père Galas gars yi bu ñu waxee lii nga war a def lii nga war a def mënuñu def leneen lu dul loolu gars yi ñoom ñoo si taxaw di si jàpp lépp sotti làmb sarax la rek te loolu lu ñu digal la fekk suñuy grand frère di ko def Modou Lo suy bëri dañuy lekk ba suur ñu dañoo lekk sarax ba tool nii de ñun saraxu mbër yi moo ñu def mbër. waaw <laughs> mbëru parcelles yi nii. waaw yow seen ceebu yàpp yeeg seen ceebu jën yi moo ñu def mbër ak seen sarax waaw noonu noonu noonu noonu tàggoo. waa Dame Sène sama doom yaay mi ngi fi bilaay. ak Dame Sène ku daa de mooy yow luy loolu Dame Sène maa ko dàq foofu chaque jour mu teg ma gàcce fii lañ ànd benn xew maire bi ñëw di ko jaay fer. ma ne ko Dame Sène looy doyee lii a soxna amoo dara yaa ñàkk jom mu naan ma noonu kii fii la taxaw ma ak sàngam ma ne ko Dame Sène fu nu dem nga indil ma problème da ngeen ma dimbale waxtaan ak Dame Sène eh. fer yi du ko doyee dara. moom dafa bëgg la bon rek. que jënd na. da koy jënd moom da koy jënd nii di ko téye di ko xool di ko fooyee waaw loolu mooy lan. dafa bëgg am soxna. ba am seen xel mi yëpp soxnaa si de. da seen takkal jabar da feebar de. yow nag. <laughs> ñaanal ma ma takk waaye mais instant yii nii est-ce que du ma xaar tuuti. Hmm. waaw. mais bi bëgg na ko ah, bëgg na lu kay. ah yow soxna la mooy. loolu ngay dundee ak sa yaay ci biir kër gi en tant que mbër naka ngay dundee sa mère ci biir kër gi. waaw ah, mbër moom dafa métti xam nga ak surveiller bi des fois ngay bëreeg mbër gars yi di fi ñëw di jéem ay affaire ak yooyu des fois nga gis am na ku fi ñëw di laajte di laajte laajtalu des fois da ngay gis nit ñëw ak ay espion ay yooyu moo tax dëkk ak mbër boo ciy dugg nii ñoom ñu naan la bul bëreek yooyu des fois da nga yaakaar dañoo bëggul nga bëre mais ñu xëy na ñoom coono bi ñuy xam moo ci topp yow doo ko gis période boobu mais boo demee ba nekk ci carrément nag ngay xam ñii naka la liñ doon wax. xaalis daf boobu kase sax combat yu bëri da ngay gis ni des fois day may espion da ngay gis ñoom dañuy gis nit sax xam ne kii ñëwam naturel ak détail yeneen yu yeneen ak yeneen yeneen yu bëri yoo xam ne làmb dafa bëri coono lépp lu tax si yow fekk bëriwoo pare dañuy sonn. mais mu yow mbër yi moom. da xëy def sa mburu libre ñebe ak mayonnaise wala nga dem mer laax def laaxu natari ak nga lax bu paree nga lekk sa ceebu jën añ ba suur boo ngoonee nga def sa poñse dina sa sow ak sa peole daal di dëgërlu ay lekk mbërëg nii na nii la ma kaa dundee ma defaat sama béton armé jënd sama cere def si sama tege dege ak ca ak caakiri ak caakiri mais yow béton armé mosoo xam loolu da ngay dëgër këcc gisoo kii naan ma combat bi da jeex ma ne ko kong laa def béton armé laay lekk ak mélange laaxu na tere nga lax wala ma def poñse sow ak peole ba mu xëyee def sama mburu li bar ñebe may ne <laughs> tàggatool mbokk su ma xëyee am rek damay jël tàggatool waa ginnaaw ba nu sante yàlla dañuy tàggatoo ñoo ngi tàggatoo nan ngay gërëm <laughs> waaw di gërëm ñëpp waa parcelle ak ñi ànd ak man ñiy sonn samay combat ak ñi may ñaanal ak ñi ma bëgg te yàlla tax te defaluma leen dara ak euh, sama waa écurie ñoom bébé Zal ñoom xam nga zim ñoom mala sam waaye ay maxulaay boroom yaraax ay maxulaay wax yow ñoom xaadim gay mais vaga lañ koy woowee vaga ñoom Tafa Faye xamal mu lax mu walfin Baye Fall bi Maurice bàyyiwuma kenn boo yooyu suma làmb yi billaay walaay dama leen di yërëm sax des fois dañuy toog fi ba fajar bu ñëwee suba la làmb ji te yooyu noonu tey yow yaa tax ñu koy def ndax seen seen xarit seen lépp mooy bari ñooñu mënoo toog fenn te santoo leen gërëmoo leen. dama leen gërëm bu baax ak ñuy sonn sa man nekk sama cumukaay ñoom imaam Kader Père Galas ñoom Tafa Fay Maas Saybatu Bas Celaaw borom Seras góorlu bi xawar daas bi moom buggul bagara buy caar xam nga ñëpp daal billaay képp koom danga ciy sonn rek ñoom Mbacke Ndiaye awma seen fay yàlla na leen yàlla fay quoi di santaan ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni lépp lu nekk su lépp lu ñu jógee ñun fàtte nañ ko ñu ngi xool suñu kanam promoteur yi nañ ñëw suba suba ñu demaat signature jëlaat beneen combat dem bëre ndax mooy suñu métier dimanche bu ñu toog bëriwul ko ñu ngi koy perte. jërëjëf jërëjëf.